Je rafet également émission parce que mhm. vraiment y une originalité. Mhm. Eh, et puis aussi chaque année

mën la wax ne la ci ca yi la ci gannaaw ci lañ commencé woon def ay CLD CDD ba CRD ba def nañ la réunion d'évaluation ci bu mujj bi kon bépp matuwaay boo xam ne war nañ koo jël ci fànn ci fànn yu bari fànn ak ndox fànn ak courant euh, ak fànn gu mën a doon fànn ak euh, assainissement sécurité lu mën a doon rek. donc lu ci nekk càmbar nañ ko ba teg ko. li nga xam ne moo ñu yitteel euh, moo di wàllu communication bi. Mhm. loolu aussi bi ñu commencé liggéey bi yàgg na xam nga dafa bari ay sous commission sous commission bi nga xam ne mu ci eppone liguey moy sous commission accréditation ak sous commission hébergement et restauration bu dee accréditation bi commencé nañ ko ëpp na ñaari weer euh, fi may wax yeen ni ñu ci plus de 1600 demandes yo xam jot nañu maintenant nak ci bu loolu dañuy def arbitrage euh, pour délivrer 1000 accréditations yi nga xamante ne bi mom la comité bi sas ndax xam nga dañ ko dañ ko dañ ko yemale. Mhm. pour que nit ñi nekk dans de bonnes conditions. parce que aussi amul solo ngay dajale mbolo mu bari. Mhm. ta na nga leen war a mën a saytoo dafay dafay des. donc te foog naa junni euh, doy seuk mhm. bu dé ci walu bi nga xamé ci mo ay ci walu hébergement bi aussi euh, ñi ngi ci juroom ñetti site. ñi ngi wut yenen ndax site yi foog naa dina mat fuk ak ben japp fuk ak ñaar. juroom ñetti mom yamuna ñu ngi koy ñu ngi koy defaraat di ay réparation yu ndaw rek moo ci moo ci am. <laughs> yoo xam ne daal incha allah boo xamante ne bii commencé nañ hébergement journaliste yi yooyu yëpp bu ci yàlla àndee bu ci nekk bu ngeen dikkee fenn fu nekk la fa war a am lépp di ngeen ko am.

naka li ci des rek mooy nag toog xaar gan ñi dikk. ñu magal si jàmm. Mhm. c'est seen relation ak ñi nga xam ne ñooy les hommes des média mu di journalistes yi nga xam ne ñoom ñooy véhiculer souvent li nga xam ne moo di euh, événement yi nga xamante ni moo di am. Euh, nan la demee ban lan lañ ci mën a jàpp si seen diggante ak ñoom ñi nga xam ne souvent ñoom ñooy déplacé wu des kilomètres voire ñu jógee sax partout dans le monde ñëw fi nga xam ne moom moo di dëkk bu sell bi est-ce que relation bi c'est au beau fixe est-ce que gis ngeen satisfaction par rapport ak ñoom li nga xamante ni moom moo di retour yi ngeen am souvent parce que ça fait plusieurs années ñu lay gis à la tête vraiment de cette commission. non relation baax la ñu am euh, parce que d'abord euh, partenariat lañu nouvé ak ñoom. Mhm. am loo xam ne ñun dañ leen ko gàddul. te bu ñu neexul duñ ko def. absolument toujours dama ci insister. Mhm. Hmm, ndax euh, presse bi. Mhm. kuy jógee ci sa këru liggéeykaay booy ñëw. Mhm. am nga ordre de mission. am na ay frais de mission yu ba àndal. prise prise en charge yi kon bu dëkk yow yaa war a yor sa bopp. mais sëriñ bi dafa wax ne eh, ñëpp ay gan lañu. kon képp koo xam ne ñëw nga Touba. ak liggéey bo mën di def rek ganuk sëriñ bi te sëriñ Tuubaa aussi berne la wax kon berne di ngeen cee bokk kon loolu mooy hospital, bi nga xamante ne bii aussi suñu warugar la ñu jox leen ko nuyu ak aussi ak yéen partenariat ndax ñun dañoo yore message message yi moo di njàngaleem sëriñ bi ñu sas ñu war ko tasaare ci àdduna si yéen aussi ngeen yor ngeen ay jumtukaay yoo xam ne dafay jàppandal tasaare boobu kon dafa mel ne lëkkaloo gi kenn ku Euh, am nga ci walla am nga ci intérêt. kon foofu aussi boo ko xoolee dañu fay dañu fay dajawaat. léegi nag li nga xam ne mooy am solo moo di partenariat bi naka lañ koy defee. parce que loolu également mooy euh, impacté ci type euh, en tout cas relation bi nga xam ne danañ ko am ak yéen. partenariat bi aussi ñun dañu wax ne amuñu amul censure amul orientation amul indication bu jox kenn. Mmh. dañ leen di bàyyi ngeen def seen liggéey ni ñu ko waree. Mmh. ndax jàpp nañ ne. ñii ñëw am nañ le sens des responsabilités. am nañ éthique ak déontologie bo xam nekk na ci ñom <laughs> ba buñ leen bayé aussi ak teraanga gi leen def danañ liggéey ni ñu war liggéey. ñun aussi partenaire lan mooy ki suñu warugar mooy lépp loo xam ne soxla ngeen ko comme kay ngir ban def seen liggéey. ñu mettre ko à votre disposition. loolu moo nek nekkuwaay mais aussi moy contenu information yi. Mhm. Hein, moo tax ba lepp lo xamné ne sëriñ bi bind na ko ñu tënk ko wut ay borom xam-xam yoo xam ne aussi bépp leeral boo xam ne soxla ngeen ko aussi ngeen dem ci ñoom ñu leeral leen ko. Mhm. moo tax moo tax jàpp naa ne kenn ku nekk rek en tout cas boobu ba léegi kenn ku nekk mi ngi joué rôle bi nga xam ne mi ngi ko war a joué moo tax aussi quand même ba ñu am euh, résultats yi nga xamante ne aussi ñu ngi koy am kon mën naa la wax ne pour résumer. Mhm. que c'est des relations qui sont au beau fixe. Mhm. foog naa luñ ci naqari amuñu ko ci yéen aussi ci seen côté. foog naa ne li ci ki naqari en tout cas amu leen ko ci. kon dañuy continuer rek loolu maintenant gën koo approfondir pour que inchallah allah seq <clears throat> mhm. alors sur ngi koy wax léegi sur 1500 demandes 1000 accréditations moo am mu di 1000 euh, au-delà de personnes qui ont fait c'est des humeurs aussi à gérer. nan ngeen di def ba di accomplir lolu gérer li nga xamanteni mom gérer li nga xam mom modi restauration yi ba parce que 1000, également c'est un peu colossal il faut le dire. waaw xam nga xam nga ñun dañu ànd ak suñu suñu yar ak suñu teggin rek. rek mhm. lañ leen di gérer parce que parce que parce que ñii ñëw lu ne mën na cee nekk mais li am solo rek mooy yow amal yow yow amal noo nekk. Mhm. te fii euh, sëñ moom yar na ak njabootam. Mhm. ba ba képp ku ju gis képp ku leen wis képp ku ñëw rek ak noo mën a mel ak jikko joo mën a yor danañ la xajoo danañ mën a jëflante ak yaw ci seen jikko ji nga xamante ne mooy jikko ju sell ji jóge woon su ñu def ko ci ñoom. kon loolu moo tax ba jafe-jafe yi du du bari. képp ku ñëw aussi te xañ na am am am jëneen yéene danañ wax a yow ci anam goo xamante ne bii. Mhm. bu yàggee rek da nga da nga dellu si. Mhm. ndax fii moom lu baax rek moo fi nekk. Mhm. kon képp kuy ñëw aussi lu baax moo la war a yëkkati. loolu lañ gisee parce que mbirum euh, Serigne Touba kon foog naa ne.

ñoo ñu aussi seen seen accréditation ñu bloqué ko donc loolu mooy mesure conservatoire bi ñu jëloon général aussi def ci liggéeyam dema dema dem ba identifié ñooñu fa ñu nekkoon nga xam ne ak gannaaw ba ak njëgale bu ci amee sëñ moo le donc aussi euh, du amul faiblesse boo xam ne am na ci hmm? donc amul faiblesse boo xam ne am na ci dañuy responsabiliser nit ñi rafet njortu waaye bu ñu gisee lu ñu war a saafara matuwaay yi ci war a jël aussi dañ koy jël en toute responsabilité. Mhm. alors euh, beneen question moom mooy tamit euh, ba léegi ñu des ci wàllu communication alors presse bi ci seen wàllu bopp ak yéen seen collaboration yaa ngi koy tudd léegi mais tamit da ngeen di gérer li nga xam ne moo di communication fas yéene chaque année indi mbir yu bees yoo xamante ni dina tax condition. yi gën a baax ak ci wàllu communication bi. est-ce que am na innovation yoo xamante ni euh, ren ji mën nañ ko gis loo xamante ni peut-être daaw loon am at yi ñu jënd. waaw dañuy dañuy dañuy dellu ci ginnaaw. Mhm. parce que dafa bari loo xam ne am na fi ñu jëmmal ko te daawut am. Mhm. Euh, boo xoolee bi ñu bi ñu njëkk li fi njëkk indi moo di euh, multiplier sport yi indi lu mel ne ay ay ay écran géant. Mhm. Ah, ay écran jour écran nuit. Ah, di ci di ci jàll ay yëf. indi ay euh, ay documentaire également yokku ndaje yu mag yi. forum yi conférence yi. lolu hein? loolu dara yem na ci ci biir dëkk bi. Mhm. même dem ba indi ay ndaje international. Mhm. hein muy colloque yi donc euh, cadre yi yooyu aussi dañ ko dañ ko dañ ko élargir. Mhm. Euh, beneen bi aussi moo di ci ci li nga xamante ne bii parce que parce que loolu ci image bi la bokk dañ daan jël ambassadeur dañu daan ñëw toog mais duñ comprendre li ñuy wax. tout fait ñu indi ay cabine. indi ay ay interprètes. loolu aussi ñun ñoo ko njëkk a def fii ci Sénégal hein? donc amna na lu bari bari lo xamné ne seq nañ ko ci. ni ngi dañ ñëw aussi def conférence dem. Mhm. léegi ñu ne non conférence après dañ koy teunk diko def ay téré mu mu defi dess mhm. loolu lepp aussi liggéeyu euh, commission bi la. Mhm. liñ ñu doon saytu xamuñu nu mu toll. ñu né kon dañu organiser des études d'impact. yo xamné dañu xam kan magal gi ban jeexital la am ci walu diiné ci walu société bi ak même ci walu koom ci lañ dem ba génne que ne gi amoon na chiffre d'affaires milliards ginaaw bi ñu ne milliards. lolu aussi même ba état bi dem ba ba joggi ci. ba justifier def magal gi jour férié parce que mérite nako parce que magal gi dañuy da fay liggéey xaaliss bu bari. kon même bu ñu defee jour férié amul xaaliss bi ñuy perte contrairement ak yeneen bis yoo xamante ne bii dañuy dañuy dañuy tëdd nelaw duñu duñu duñu liggéey dara. Eh, ñu internationaliser ko kon yoyep ay ay ay ay ay. innovation innovation mhm. consolider mhm. consolidation. Mhm. parce que aussi vous innovation, une ba am en tout cas pour am résultat yi la nga consolider ba maîtriser ko. soko nak nag ci benen phase. donc euh, instant bi nii ci phase consolidation lañu lañu la ñu toll. boo gisee même euh, c'est est le même concept qui se qui se répète. Hein, fàttali naa caravane bi. kooku ci a été une idée vraiment en tout cas bu amone solo. Hein, fi parce que mu wërale màggal ci biir réew mi Sénégal gépp kan ko néew gis. Euh, am na mo xamné foot lañu Fuuta la ñu dem ñu ngi demee Fuuta at ma la la ca topp daanaka waa Fouta gépp ñoo ñëw màggal si. Mm. donc mu yokk ko ci ci ay ci anam gu am solo. Mm-hmm. les conférences également à l'extérieur. Mm-hmm. donc tout ça nag on est en train de le de le consolider. Mm-hmm. ay ñu yoo aussi xalon nañ ko légui dañ ko bàyyi nit ñi. lu mel ne wàccaay magal légui nit ñi ñokay défal defal seen bopp. nga xam légui maintenant da dafay mel ni comité bi da fay toog rek di di xol di surveiller. Ah, di di di di recadrer. mais légui nit ñi lu ci nekk dem nañ ba amna une certaine appropriation. te loolu aussi moo nekkoon objectif bi parce que lépp ñun mënuñu ko def. Mhm. ndax équipe bu ndaw la. donc bu ndaw mënut a daj adduna mais équipe bu ndaw mën naa génne idée yoo xam ne day daj adduna mhm. donc loolu eh, ñu ngi sant yàlla. Mhm. di ci sant aussi nag euh, xalifa général yi xam ne ñoo fi jiitu. notamment Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. nga xam ne comité d'organisation moom moo ko teg mu jur. lii nga xam ne lépp juddu na ci. ànd ko gannaaw ak Cheikh Sidi Makhtar. moom itam ànd ko mu at yu bare bare bare moom mu ko daan topp. di ko topp da nga ko daan nuyu mu ne ma wax ma sa liggéey de nee nañ ma lii nee nañ ma laa da ko daan topp mayu ni ñuy ñëw di ko di ko rendre compte ci loo xam ne yow sax doo ko yëg boo ñëwee moom moo la koy waxaat hmm? ak sëriñ bi fi nekk suñ Muntaxa nga xam ne jekk moo ma nekkoon jëwriñu liggéey bi kii président bi nag di Serigne Bassirou aussi vraiment am ci taxawaay bu am solo parce que xereñam la ouverture am la xam-xam la moo permettre maintenant parce que moom moo délimité cadre boobu mm-hmm. parce que aussi ci la ñuy wéy qui qui ci limite yi nga xamné mom lañu la kon lolu aussi quand même euh, man naa ne euh, ndamam la. Mhm. ak maintenant toute l'équipe maintenant qui est qui est derrière parce que du man donc man dama nekk ci kanam comme animateur. Mhm. mais il y' a toute une équipe vraiment compétente et dévouée à ak pas-pas ñom ñu liggéey bu liggéey. Mhm. et l'équipe c'est que des professionnels. que des professionnels donc je me jël ñëpp ay professionnels lañu. ñoo xam ne nañu mën nañu bi. parce que man compétence bi moo ma amal solo. que aussi nit ki dafay li muy def da koy jàng xam ko man ko wala en tout cas mu pratique ko ba am ci expérience boo xam ne mhm. mën na la ci indil dara te képp koo xam ne ci yaakaar nga sëriñ bi rek boo ko tijlee buntu en tout cas dina ñëw àndee pas-pas liggéey parce que nous ne pouvons lañ bëgg liggéey Touba. Mhm. aussi dañ ko dañ ko Tidji, xam-xam ak fu a rek mhm. euh, bu ne bëgg na ñëw bëgg ñu mhm. alors le Magal au plan culturel euh, pèlerin bi nga xam jouer au Sénégal wala ci bi ñëw ngir à lan non ce qui fi li fi xaar euh, li nga xam ne li li parce que xam nga Touba rek Touba rek day day kiimaan waaye aussi bu ñu bu ñu bu ñu perdre vue que ne d'abord diine la jaamu yàlla la santale ku baax ku suñu borom may lu bare bare bari ci bis bi mu ne man sama kent dafa doyut kon képp koo xamante ne bii rek sama mbégte sama mbégte la képp koo xamante ne bii rek sama mbir kër yittewoo nga ko ñëwul nga sant la ma kon d'abord kii dikk loolu moo ko yëkkati ko yëkkati mooy sant la Serigne Touba suñu sunu borom ci li nga xam ne defal na ko bu dikkee nag ci lay gis nag kiimaan yi nga xam ne aussi mooy kiimaanu sëriñ bi ci mhm. ci ci dëkkam bi mhm. kiimaan gi ci mooy jumaa ji rek jumaa ji kiimaan la mhm. imaginel bañ koy bañ koy tabax ci époque coloniale dans les années quarante ci lañ ko commencé woon boobu nga xam ne réew mi dara amu fi ñu dem ba taxawal lu lu day bi nga xam ne jamono jooju moom dong mooy ab tabax ci dëkk bi nit ngi dëkk ci ay néegi ñax dëkk ci ay saket tabax des milliards de nga defal ko sunu borom. aussi di qui a man di importance bi nga bi aussi ñi fi nekk di ci euh, ci di donay sëriñ bi fonku nañ ko ak la aussi bo diké lolu amna def ci yow sa sa jaamu yàlla mhm. yokk aussi sa takku nag ci liggéeyal sunu borom ci sa wërsëg parce que li fi nekk lépp ay dërëm ay benn ñaar ak ñett mhm. moo ko fi def mhm. hmm? eh, boo dikkee itam nag njabootu sëriñ mi fi ku ne am na foofu féete dem ziare gi sëriñ bi am na ay barabu ziare yoo xam ne aussi mi ngi fi boo dikkee aussi li nga xam ne mooy njàngalam sëriñ bi au plan culturel moom aussi lépp day nekk ci sa disposition moo xam téere la moo xam ay version électronique la

maanaam jaxasoo gi nga xam ne moo koy jur ki sa diggante yow mi dikk ak say moroomi jullit sa diggante ak say moroomi eh, taalibe donc mu loolu aussi di indi jeneen jeneen jàmm même ki wàll koom intéressé bu dikkee aussi comme maa ngi fi eh, ndax loo yaxantu rek bis bi loo jaay mu jar eh, kon foog naa ne daal ay ngëneel ay xewali kese la rapidement ñu terme euh, au delà de euh, fonction yi nga xam ne yëpp dénk nañ la ko chef de famille nga également. Euh, chef de gis nañ ne chef de famille nga euh, presque un mois deux mois voire des semaines tey jii nii nga privé peut-être lu bëri loo xamante ni waroon nga ko partagé ak ñoom nekk ci liggéeyu sëriñ bi démb bëggoon nañoo tourner mais à notre grande surprise mënuñ woon la am ndaxte yaa ngi woon ci ci ci ci yoon bi euh, nan ngay juguler les deux nan ngay aménager woo ba tey jii nii ñoom tamit doo leen merloo bëgg nañ gis la peut-être à leur côté pour ñu mën mën a saafonteeg yoonu nan ngay juguler liggéey bi ak li nga xamante ni moom moo di tâche yooyu. non xam nga xam nga aada yi bokkut su ma nee aada mooy culture dafa bokkut. Mhm. Euh, fii moom bu sëñ bi soxlaa man la may nekk service sëñ bi yow itam noonu lay service bi. Euh, te te te te kenn ñun loolu loolu mooy bànnee xam. Mhm. fii da ngay da ngay da ngay juddu euh, sa wajur am lu ne. si fi toog ñëpp. Mhm. nga am juróom benn at ñu yóbbu la ci daara nga bàyyi lu ne ci sa kër nga dem di tumuranke

ci am wajur bo xam ne mi ci liggéeyu Serigne Touba buñu talé sen seen télévision gis ko buñu xolé gis ko ñu né ah ñu ne ah moom kat ma ngi ci liggéey ba sëñ bi ko non ko fierté la ci ñom au contraire té dir bu gatt la euh 3 4 semaines mu dia nga delluwaat ci activité normale di ñaan yalla rek serigne bi nangu li nga xam mom lañ koy jëfël té njàgg ko ko jëfël té aussi ñu am xereñ ak katan ak wërsëg. Mhm. buñ ko mëna jëfëlé jëfalee. Mhm. dernière question le chef de l'État le président de la République Macky Sall mu fi woon euh, demb gane si. alors euh, waxtaan na ci li nga xamante ni moo di wàllu assainissement ak wàllu ndox bi parce que nee na ñaari màggal yi ñuy dugg si ci nawet lay tombeel kon jol na ngeen jël précaution yi ngir mën a daal di fàggandiku ci wàllu woowu d'abord euh, lan mooy sa xalaat ci loolu ak li nga xam ne tey jii nii moom moo di ñëw président de la république ci dëkk bi ak quelques jours du màggal ngir daal di euh, dénk état bi ak lépp loo xamante ni daal euh, ay projet la ñi nga xamante ni ñoo di kilifa yi dégg nekk fii ci réew mi. non dañu nekk en phase ak ak moom ci lo à 100 pour cent. Mhm. parce que parce que loolu c'est une vieille tradition boo xam ne d'abord bu réunion yi jàllee bañ def évaluation président donc daf fi ñëw aussi nemmeeku si boppam sëriñ bi ziare aussi mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi parce que occasion la ci ci mu daje euh, effectivement ni mu waxe magal màggal gi commencé sax ci nawet bi parce que mhm. ndox man ki ci bi donc mais année yi di ñew mom lolu ken waxali wu ko mu kat kon lolu am disposition yo xam ne war na ci mhm. parce que tay bu jëlé ndoxum Touba amna fi ñaar fukki forage ak juróom ñent mu 29 mhm. normalement lolu waroon naa doy ci approvisionnement en eau dëkk bi mais gis nañ doyut lu ko sabab ndox mi luñ ko défar lu ci bare bare day seep ci souf parce que dafa am ay fuite

parce que dingo ko fay. Mhm. dañuy ci juróom bi nañu muy muy muy bàyyi ko muy muy tàkk noonu ndox mi di ndox mi di donc dafa bari ay problème mhm. léegi nag moom bi mu lan la wax mu dañuy diagnostic pour xool lan sont problème yi cerner d'abord les problèmes avant d'envisager envisager des solutions parce que actuellement ne pilotage à vue la fait def. Mhm. dañuy rek gas forage gas forage gas forage donc on apporte disons euh, soi-disant les mêmes solutions alors que xaj na nekul solution bi. Mhm. donc nañu jàngat ba xam lan moy problème d'abord d' avant ñu xol ban type de solution la apporter kon diagnostiquer le réseau dafa mënul ñàkk parce que aussi réseau bi ñom ñi ci liggéey ñoo ko wax seen bopp nee nañ xamuñ ko xamuñ fu Théo jaar. Mhm. xamuñ kenn dafa jaar. bon loolu foog na dégg na ci seede ñu né ça doit être un coup de 1 milliard huit cent yaakaar suma su ma jum maîtrise ma chiffre motax duma ci duma ci sori hmm? euh, mais loolu buñ xamé nak ba ba xam type de réseau bi bi am fan la fan la jaar. buñ ko mokkale ba noppi danañ mën naa xool lan mooy jafe-jafe bi dëggantaan est-ce que réseau bi dañ koy changer en totalité. foog naa du ko jar parce que am na ci yoo xam ne yu bees la. kon la nga xam dafa màggatoon ki date des années soixante loolu moom c'est sûr que dañ ko war a changer d'autant plus que am na yoo xam ne dafa nekk fer ndox mi am xorom te xorom dafay lekk fer. Mmh. mën ngaa tigi sax solo bi ne euh, muy mu mu xumaak nuñ koy wala wala mu lekk ko ko muy sép donc amna ci lo xamante ne war nañ ko war nañ ko changer def ko vraiment un réseau moderne. Hein? benen bi moy ñi ci intervenir également ñu jox leen formation bi ci war keroog amna na ku jóg wax daal ne mais ça pose un problème social parce que dañu organiser wu ay daayira lañu buñ leen ko téré teree dootuñu am dépense mané ko non du c'est pas un problème ko opportunité d'emploi la parce que ñooñu bëgg nañu mais mënuñu mmh donc.

li opportunité d'affaires la sax. c'est pour ñi nga ñoo ci dëkk bi. am comprendre parce que tey am ñoo ci bu jeex. xam nga kon <laughs> problème la. donc disposition mentale yi mom changer. bu avons naka aborder maintenant cette euh, question buñ ko mais et c'est heureux le chef de la cam et à cela. Mmh. pour l'assainissement aussi bon li wër dëkk bi commencé na am assainissement waxoon nañ ko fi avant réseau d'assainissement bi fi nekkoon Sëñ Saliou moo ko fi defoon am na réseau d'assainissement boo xam ne mi ngi commencé am ci li nga xam ne mooy li wër jumaa ji mhm. suñu continuer investissement yi donc yokk ko mu jëm maintenant dans les quartiers périphériques ba bu tawatee fépp foo xam ne ndox taan na fa muy dem mhm. te suñu ñu moytu natt yi ñuy nat ta andul ak assainissement mhm. parce que parce que lotissement buñ koy wax lotissement dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dafay ànd ak ak assainissement. Mhm. day ànd ak électrification. Mhm. dafay ànd ak ak adduction mais ñëw rek fekk un terrain plat nga natt ko. Mhm. Euh, def sa quatre bornes commencé jox ay terrain mais non defoo defoo lotissement. defoo lotissement ay problème ngay créer. foog koy def sax boo demee ay ay ay ay xur lay nekk ay point bas lay nekk. donc ay problème ngay créer. mais bu ñu wax dëgg dëgg dëgg lotissement. day and ak ak ak yu jumtukaay yëpp lay àndal nga xam buñ dikkee lépp lañu fi fiy nga ngi ñew rek di installé wu en tout cas di brancher wu ci ci niche yi pour di am li nga wara am il faut aussi ñu am cet esprit moderne pour que li ñuy def ñu def ko dans les règles de l'art mhm. xam amna lo na loo xam ko def mhm. parce que amna ñu capacité di ko def kon amuñu droit def moins que les autres mhm. il faut qu'on ait cette ambition là et que donc man nañ ko réaliser parce qu'on a tout